yooyu daal gisuma la fi mu toll nii xam naa ab géwél laa danga may bañ a may rek moo tax nga may làqatu. alaaji dafa kañ yaa ngi may gis. lay ah, gis moom maa ngi lay gis. ah ñu waa Pikine dañu ma baa lay gis baa amoore maa ngi ci jàmm. waaw ah, bi. léegi xam naa ne moom màgg na moom moom. loolee grand la grand la de léegi day xeex de day dóor ay gos droite de. non non ah, eh, nekk bu xeexee nag bu doxee maa génn ma ko may de. <laughs> mais naka mu. waaye sant bu baax mais macha allah maa ngi nuyu gars yi ah. di nuyu Mourtala mi génn léegi. Hmm. di nuyu Serigne Diour ak Beuz bi nga xamante ni gaar nañ sama ginnaaw di nuyu waa team commentaire mais saa su fekkee hmm. ne tool bi gars nañ la quoi. waaw waaw waaw gars yi nag ndeysaan. na ko nañ bu baax macha allah. waaw mais maa ngi tuub bu wér nag. Mm. nekkoon ci affaire rek doon doon doon jaay jongo ju forox. waaw mais noonu mi baax. a ah, man de wax dëgg gisuma la. maa ngi sama sëriñ Dial sama xarit. nit ku baax xam def xam def. waaw dama damaa xamul ndax Tafa Kandji ndax temps may na ndax xam naa ne bu waxtaan te doo ma gis yow boo fi neke da ngay maam maam loolu da lay gêné hmm. léegi dama fiy bàyyi Tapha Kandji Serigne di ñu nekk kaat ma waxtaan ak yow nga loolu am xam di nga am ñoo gis yow yow nga am ñooy gis au moins doonte gis mais nga am ñooy gis waaw bëggoon naa gis sa kanam gi trop ndax yow boo jaaxlee da ngay gàññ <laughs> mais sëñ Moustapha maa ngi lay ziar bu baax sama sëriñ maa ngi lay ziar Cheikh maa ngi lay ziare bu wéer a bu wéer a wéer namu naa la lool wala la koy delloo maa la raw maa la raw ah, yal na nu yàlla defal jàmm lambuloog bu mag xam nga tontoo ay murtala yi maanaam dañoo raar ci lamb xam man murtala lim ñemee wax ci live man ñeme moom mm-hmm. mais xam nga loolu boo gisee xam nga gis nga làmb dafa war a mën a nekk sport rek comme ñu football Serigne Diouf dafal demande Serigne Diouf dafal demande mhm. làmb dafa war a mën a nekk sport rek comme ni football nekkee sport mhm. voilà waaw parce que da ngay gis tey exemple lu ci mel ni tey ay France Angleterre bu ñuy football da ngay gis ay français yu toog ci plateau mais dañuy dañuy dañuy décortiquer di wax force faiblesse seen équipe force faiblesse yu Angleterre mais léegi làmb làmb Sénégal léegi dem na ba tollu niveau boo xamante ni. Mhm. tey bu doon tolloo man ak yow dañuy bëree. Mourtala analyser daan na Tapha Kandji bi muy dóor moo gën a jub bu tolloo rek gars yi ne non c'est parce que dafa bañ tolloo. waaw dafa bañ tolloo waaw effectivement loolu la ñuy wax wala faire part. gisoon naa suñu papa ndem si yàlla ndem si yàlla booy bambara ak Père Mbaye Guèye daan nañ ko def. ñoom daan nañ mhm. Mhm. toog ci plateau ñoom nga laal leen ñu jël engagement wax ne lii ak lii ak lii ak lii laa gis. Hmm. gis nga mon frère mon frère man ma ma ma ma ma ma feelu la foofu ma wax la benn mbir ci Père Mbaye gi na ko yàlla yërëm ñaar ñi nga tudd. Mhm. gis nga compte ku ñàkkoon keñaan a ngi noonu man Père Mbaye Gueye toog na toog tax nañ moom tax na ma gën a bàyyi xel Balla Gaye numéro 2 li ma topp Balla Gaye 2 yëpp mhm. Père Mbaye moo tax ma gën koo bàyyi xel xam nga ci kan mhm. ci combat Balla Gaye 2 ak Tafa ak Papa Sow man la ci la ma Père Mbaye waxe benn wax yàlla na ko yàlla yërëm ak li ma doon topp Balla Gaye ci laa ne kon ci laa ne kon mbër maa ngi nii parce que Père Mbaye Gueye ñoo toog ma ne ko kii ngay gis nii Père Mbaye Gueye Père Mbaye Gueye ni ma doomi Double Less bi il est fort moom nii la mm-hmm. dama fa seetaan Balla Gaye seetaan naa fa Balla Gaye mun ma mais pour mu daan papa yaakaar nga ne dina yomb ci kii bi nu ñaata ci biir stade bi stade bi ba maar Diop ma ne ko xanaa xamoo kii papa sax bu moytuwul kii da koy mu daanu Père ni ma lan moo tax nga wax loolu noonu ni ma mu fiis mu naa mun ma kii mënta dóor Papa Sow mu daanu non non c'est impossible non non ma reetaa man tax mu naa ma ko booy daa yor benn arñe boo xam ne dafa gaaw-gaaw boo xam ne bu Papa Sow boo moytu ba Papa Sow xefe xippi dina ko dóor mu daanu parce que bi daa gaaw te loxo bi Balla Gaye dóoree bi Balla Gaye dóoree Papa Sow mu daanu daf maa daf maa téye nu ñaan noo toog bi toogee mu jëkk xoola ba caani mo fiis ma ne ko ah, mu ni mu ne non boobi boobi boobi boobi champion lay doon cette gosse là ma ne ko non il est fort kii champion lay doon du Balla Gaye daanee Papa Sow moom moom wax loolu. ndeysaan mais Moutala. waaw léegi dama fi bàyyi tafaakaan bi au moins gis visage tafaakaan ndax boo gisee depuis waa noobul gis nga tolloo waaw benn la si say na dañoo duróo mm-hmm. léegi mm-hmm. Moutala dafa am fu nekkoon mm-hmm. tafaakaan yi jox naa la ndigal aussi ci question yi may posé Moutala loo ko bëgg a question ci thème bi ma nekk dugal may naa la autorisation boobu léegi Moutalla hmm. dañu génnoon ci bébé Diène ak euh, dañu nekkoon ci bébé Diène ak Zarko hmm. mais foofu li ma koy lenn la mooy bébé Diène ak Zarko hmm. kan nga jàpp mooy favori combat boobu non combat boobu ñoom ñaar suñu toll nii kaamax la benn affaire de danoo toll ci làmb ñoom ñaar ñëpp parce que li tax boo joxee Zarko favor boo xalaatee li tax boobu Diène jël ko ak fi mu rek sa day teey mais Zarko dafa nekk ci benn dafa am benn mentalité boo xamante ni si ni instant bii nii Zarko Modou Lo da ko wàll feebar feebar bu garaaw la ko wàll. muy lan. mooy kuy ndaw mooy mooy kuy ndaw maa mag ci lépp. kuy ndaw maa kuy adversaire ma te kuy adversaire maa la man. kuy ci lépp kuy loolu daa nekk ci loolu daa ci mentalité euh, Zarko waaw. moo tax fu mu toll nii Zarko nii nga gis nii nii nii nii nii dina jafe lool nga gis booy bu ko arrêté. Hmm, du yomb de. du yomb déedéet parce que lu tax xanaa xamoo Zarko bokk na ci boo bokk na ci ñi gën a ñi gën a jafe déséquilibre ci ab géew. nee ma neel benn ma waxaat la beneen mbir. Zarko daal bokk ci mbër yoo xam ne moom tamit am na lu mu doon na ci muudu kenn mënu koo changé loolu lim andi xam nga am na mbër yoo xamante ne sii nii yow boo liñ andi bu bu leen arrangé mën nga leen a changé seen système mais Zarko amul ku ko mën a changé lim andi na dëgg la. te dafa bokk ci lu nuy nawe lu nuy nawe mbër xam nga tey am na mbër yoo xam ne tey jii boo xoolee contre PAM doy caatu daaw defaal. Mhm. PAM doy xeex moo ko arrangé woon te loolu moo ko waroon te loolu la waroon a def mais caatu daaw defaal bi mu dikkee rek kon ne ko bëgguma xeex bi damaa bëgg a bëree ak yow PAM doy fekk ci ko si loolu mënoo koo def ay mënoo koo def yenn champion yi. déedéet déedéet déedéet. Zarko Zarko mënoo koo changé li muy indi loolu mooy problème. léegi mënoo ko changé loo dara te la fekk ci ci dara yow li nga indi nag léegi pour ma tëj foofu dama may bàyyi Tapha Tapha Tine ak benn question parce que dama ko gis kii Tapha Kandji dama ko gisoon mu bind que Bébé Diène am na benn bëree bu am na bëree bu daan ki nga xam ne mooy Zarko Tapha Kandji dama bëgg loolu nga posé ko bu fekkee am na loo ko loo ko bëgg a posé benn question foofu ñu tëj ci combat boobu jëm kanam. waaw dama ci bëgg a attirer attention bu Mourtala rek parce que xam nga Zarko comme ni mu ko waxee Zarko ndaanaan la boo xamante ni depuis mu def retour Espagne ba tey vraiment ay performance yu extraordinaire la fi moom la tegale Mourtala. Mm-hmm. Mm-hmm. Zarko mën naa Zarko mën naa bëre macha allah am na fit. Mm-hmm. ba pare te sérieux na te saa buy ñëw dina indi état. mais Mourtala xale bi muy bëreel. booy yi gën të ci mbapat. su ma la tuddalee. waaw Pambaay kerek bi daan daam seen rek. boo yooyu yëpp comme ci fenkool ci mbapat dalaa daan. bébé jéen hmm? non ci yow tamit gisoo jël bi mu daan pambaay teeree gaal gi dafa mën a bëre piir pire dafa mën a bëre pire hmm. bébé jéen sax li xaw li xaw a ne asandaam tuuti toldoo mooy maanaam tolof-tolof hmm. bi mu nekkoon ba dugg ci kaso dëgg la yàlla na fa gëj fa dee amiin mais attention attention Mourtala attention peut-être parce que dama xamul Mourtala ndax Bébé Diène danga ko xawul miin trop trop trop comme ni nga miinee Bébé Diène euh, comme ni nga miinee Zarko Bébé Diène de miin gi ko miin laa la wax bariwul sax boo yu ma ko miin parce que mu bokk na ci boo yi ma ci boo yi génération moom laa ci gën a seetaan ba pare waaw hmm. ah. moom ci booy ay génération moom laa ci gën a waxuma la ni la kii de mais xam nga la ma lay wax benn pour nga xam ko est-ce que xam nga benn affaire euh, ma wax leen benn affaire mm-hmm. hmm, Zarko day suul ndaanaan. def na preuve preuve yaa ngi. Zarko de Zarko mbër la moo xam ne day suul ndaanaan quoi. Mhm. parce que Zarko day yàq bis. di laajal. Zarko Zarko da lay yàqal sa bis Zarko da lay yàqal sa am lépp ba sa mu yàqal la ko. Ah, mais ah, Mourtala ah, dama lay siif foofu damay siif Mourtala. dama laa bëgg xamal ne la. booy yooyu ak bébé jéen mii du benn. Mm-hmm. Ah, bébé jën ñëpp kanj est-ce que est-ce que alaaji dafa kanj bi Zarko yi dañ doon bi dañ woon Ada Fass ak boy yi duñu benn bi muy bëreeg mbay guy gi dañ woon mbay guy gi ak boy yi duñu benn barke Serigne Touba bébé jën ñeme naa bëreeg Zarko biir Grand Yoff laa ilaaha illallaah kenn waxul ci xoolal gis nga gis nga dam euh, ki euh, sama Serigne Moustapha non maanaam fi may waxee Mourtala mu ne maanaam bébé jën du mbër mm-hmm. maanaam du booy nga xamante ni ñëw ba ci biir géew nga leen di perturbé waaw non ba léegi ba léegi ba léegi waxewuma ci côté gis nga waga gis nga waga lu yorut làmb bandi bandi lu yorut làmb man su ma waxee dama waxee ci làmb lu garaaw gis nga dama la ni waxuma ci affaire kii de man waxuma ci côté boobu dama leen ni gis nga làmb làmb ci boppam laa leen ni bu fekk na aw fiite ci may dara ki ci gën a tedd macha allah mooy Mouhamed ndaw Tyson mhm. moo ci gën a tedd te làmb ji ba làmb ji rek ah boo dul aw fit moo ko ci gën a ñaar mhm. yàgg naa wax moom Mouhamed Ndao Tazir waxoon na benn message la woon na mbër yi benn message bu am solo mais gars yi dégguñu ko nee na leen contre Moustapha Gueye la leen ko waxoon ni leen làmb ñu ne ko ah mu ne làmb gën muus la. làmb gën a muus moo ko lancé woon message boobu mais mbër yi booy yi dégguñu ko làmb du bandi bandi du waga wagalu. non mais Mourtala man li ma la Zarko ko ni la day yàq bis. ah non Mourtala tey ma may dara tool non Mourtala. non Mourtala non Mourtala soo eh. déggee ñu lay wax loolu. mooy léeg-léeg da gis mbër da gis mbër moo xamante ni tonto day entraîné mbër mi préparation day baax ñu koy seeraan contact sax dañ naan la kii contact kenn mënu koo daan mais Mourtala bu ñëwee ba bisu làmb ji maanaam fit wi day dem maanaam day mel ni ku ñu naawtal wala léeg-léegi dangay daje ak mbër yoo xamante ni tonto am na benn am na benn étape boo xamante ni wala am na benn mentalité boo xamante ni soo ko yorul da ngay daje mbër yoo xamante ni boo ñëwee ba ci biir géew loo bëggoon a def da koy fàtte parce que ñoom ñoo lay perturbé genre parce que parce que Zarko Zarko aussi Mourtala bu ñu waxee dëgg combat yu mu fi bëre yépp bi mu jógee Espagne ba tey toll saa bu ci géew bi affaire waga lay imposé adversaire am. waaw non avant combat ak ak ak combat yëpp loolu lay <laughs> nekk ci biir géew bi di la laalale ay sawu mbaam di la fekk fi ngay taxaw mu lay ay wër xam nga yooyu yëpp xam nga yooyu affaire mais loolu tamit dafa bokk ci muus bi ma talaa doon wax sànq. maanaam muus bi muy joué. waaw mais d' accord mais soo déggee man tamit ma ñëwaat ak Mourtada genre waxuma ko comme affaire bandit non non mais dama ko xaman ne ko Bébé Diène mi bëree ak Zarko du yi nga xamante ni Zarko da leen fekk ci biir géew di leen ruube moom du booy boobu Zarko man na koo daan sax mais du ko ruube ci biir géew. Euh, euh, Tafa Kandé fi xam naa bala ngeen pour ma waxaat la beneen biir côté boobu noonu ma waxaat la beneen biir si Zarko bokkul ak même côté de mental Zarko ni mu téye làmb ji ñu booy yu téye làmb ji dafa bokk de Zarko daa jóg Zarko daa jóg ci làmb ji Zarko daa jàpp làmb daa jóg ci làmb pour liggéey. waaw daa bàyyi Europe caaxaaneetu ko. gis man li ma lay wax ni gis nga sama wax ji dafa xóot xóot goo xam ni bépp jigéen ku mënul daan amul mais dama ne gis nga jàpp jàpp nit ku nekk dafa am loo xam ne Zarko li ko làmb jaral liggéey mu bàyyi lépp waxuma la ay kii ak nangam mais dama la ni dafa Zarko dafa gis ni moom moom ci boppam gis-gis bi mu am ci làmb di pour xóot booy egguñu foofu. motivation bi mu am ba dellu si. bàyyi li ma lay wax nii li ma lay wax nii waxuma ni la Bébé Diène ku mënul daan amul dama la ni ku mënul mais ci làmb lan waxtaanee ma wax la loolu ni ne Zarko dafa am benn niveau boo xamante ni si ni instant bii nii respecté ne làmb li muy dof dof Zarko bokk na ci mbir yi gën a dof mais moo Zarko mënoo génn mbir yi ko gën a respecté làmb instant bi ndax mën tawee mooy Zarko foo ko fekk mi ngi entraînement mu ngi ni ñàpp ba mu nekkee ci kanam entraînement lay foowee Zarko Modou Lo Eumeu Sène ñett ñii nii mbër mënu leen a gën a am entraînement ci ci arène Sénégal amul. man da woo naa ay 5 heures du matin ku dee ak sa bàmmeel ba ci combat ak ñaabu ndaw mujj liñ ne gannaaw suba ay 4 heures du matin la ma Zarko def appel vidéo ne ma xoolal maa ngi nii jaar fu ñaaw ne ma dinaa ko def nangam nangam tóol di bindal la wax. defoon na wax ca mbay guy gi maa moom daal benn baaxantal la boo xam da koo tàmm bu ko baax jege laa noo def mu woo ma appel vidéo <laughs> nekk entraînement ne ma dinaa daan diw dinaa ko def nii dinaa ko def nii kon entraînement boobu foofu dañ koy tëj nag mm. dañuy tëj foofu dañuy tëj mm-hmm. foofu dañuy dem ci deg dëpp gi dafa am combat bu ñu jëm mu jaaroon fii mm-hmm. mu talaa foofu dama ñu sekk question yi posé la ko muy Balla mm-hmm. Gaye Tapha Tine ñu bëri woon ci ay jamono suñu bopp ndam ki nga xam ne mooy Balla Gaye du ma ñëwaat ci la ca jotoon xew lépp mais fi ma première question mooy Mourtalla ñun ñëpp ñoo seetanaa woon combat bu njëkk ba Tapha Tine na gënoon jekk Tapha Tine moo gënoon pare Tapha moo dàqoon xeex ci jamono jooju ñëpp dañ ne woon Tapha Tine moo mën Balla Gaye ci jamono jooju ñu ñëw gis na mu demee Balla dominé ko ci xeex bi dox ci kawam jàpp ko dóor ko gauche droite mu laaw mu jiwal moom bëreeg moom jàpp ko daan ko ci bëri